ci daje bi gannaaw bi nu sant yàlla julli ci yonant bi alayhi salaatu wassalaam di sant suñu ñaari xar yi nga xam ne benn lanu muy sëñ Saalix Mbàkke sëñ Muntaqa xam ne amu ci kenn koo xam ne mat naa ci yow seede ndax suñu diggante yàlla def ko bu yàgg kenn ku ci nekk sama diggante ak moom ñépp xam nañ ko sëñ Muntaqa xamu bi mu nekkee doomi Cheikh Ahmadul Bachir waaye jikkoy boppam ak melow boppam boole na moom bu yàgg muy koo xam ne ku ma naw la ku ma sopp la koo xam ne ku ma bëgg la itam naa kon sopp naa ko naw naa ko bëgg naa ko ci ay meloom ak i jikkoom bëggam lu baax di it nit koo xam suñu borom daf koo def ci kat yi nga xam ne dañuy xettali mbindee fii loolu nekk ci moom na du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan sëñ saalix daanaka sax loolu ma di leen ko wax moom itam ndax dafa ñoo bokk nekk ci réew arab yi di sàkk te bu jiitu loolu it yàlla boole woon nañu li mu wax ci sëñ Muntaxa lépp nekk ci moom xam-xamam it du lu kenn umpalewu du lu bir àdduna bépp mu di njiit loo xam ni day leeral yoon wi xotti ko jaarale ci